donc euh, salaamaaleykum gars yi comme ni ngeen ko gisee fii mooy kër président Ousmane Sonko barrières yi ñu ngi nii dañ nañu donc voilà c'est pour vous confirmer cela barrières yi dañ nañu mais du ndam parce que waruloon am ba muy dañ donc c'était des barrières illégales bu ñu dañee donc dañ dem ba xam ne voilà ils étaient dans l'illégalité moo tax ñu dindi ko donc voilà kër président Ousmane Sonko moo nekk nii këram moo ngi nii ak garde corps yaa ngi noonu donc barrières yi dañ nañu encore une fois pas de spéculation dañu ñu léeg lii barrière dañ nañu bel et bien voilà donc restons focus restons focus ngeen bàyyi ay affaire indi nañ ko ah waaw non non je vous prends pas en image quoi yoon bi laay wone quoi <clears throat> donc voilà gars yi loolu la quoi bare dañ nañu fii la ñu doon garder fii lañ nekkoon ak beneen change bi yëpp mais bon bare dañ nañu daal donc voilà kër président Ousmane Sonko moo ngi nii barrière dañ nañu euh, Serigne des barrières de l'illégalité je dirais voilà barrière deñ nañu kër gaa ngi nii voilà koñ baa ngi nii d'une général générale yi dem nañu wante du ndam je répète encore une fois du ndam parce que waruñu woon installer fi ay barrières ba ñu naan deñ nañu wala deñu donc voilà c'était de manière illégale lañu fi ñëwoon jóge nañu fi reston focus reston restons reston restons focus restons mobilisés voilà kër président Ousmane Sonko dareeri dañ nañu c'est ça les koñ baa ngi nii fii lañ nekkoon donc kër gaa ngi nii quoi voilà quartier bi libre na quartier bi libre na ndeysaan donc les gars Öyle. Oh, <coughs> donc les dañ nañu barrières deñ nañu wante du ndam du ndam parce que waruloon am ba muy deñ reston mobilisés reston focus restons mobilisés reston focus focus rek Diop Samba focus rek barrières yi dañ nañu buñ toog fii di polémique di ci day wax voilà parce que du ndam encore une fois restons focus restons focus sur le projet restons focus sur le projet quoi nii laa def donc les gars xam na ma bàyyi leen ci kanam c'était juste pour vous confirmer que barrières yi dañ nañu restons focus restons mobilisés maintien rek merci